ci occasionné di wax ne Ousmane Sonko man ku ko xamut it man dama koo xam ndax xam gi ma ko xam nit la koo xam ne nii li muy wane ci kanamam boo ko teg la nekk ci biiram ndax ci ay jamono ay terrain yu nekkoon ci aéroport ba jaay na ko ngir ñu dox ci ay tànk yoo xam ne nii ci domaine boobu mi ngi nekk ci bureau ves ku ñuy wax Vezan bureau boobu ba mu ci ba mu ci nekkee nekk ci ay ay ay ay employé ba mu ci nekkee terrain yooyu ba ñu koy lijjanti dañ moo nekkoon syndicaliste euh, euh, euh, mécanicien ya tere yooyu gars yi dañ ko caa joxoon ca nañ ko ko joxe woon xamoon naa ko kon kooku li muy wax ak lim gëm bokku dara ci beneen candidat bi ko ñetteel nag mooy ñu mel ne Sonko ñooñu waa falaax la falaax ñooñu nag leen ñor bu seen pexe jooyoon la am tumutu dana am fii ci dëkk bi da nga gis ñu toj ay mbir yoo xam ne ay kër diine ko moom ca loolu dañ koy contre ca boo duggee ci ci rendez danga gis ne ñoom falaa yi ñu ngi danoo si ne heure bu Sonko nekkee président seen rajo dana am seen lépp dana am loolu teew ñu muy am waaye loolu jàngat la ndax li tax lu bëree bëri ñu koy bañ ci diine mooy diine la nga gëm mën nga koo gëm ndax pays bi réewu layit la waaye gëm ko ba pare di tooñ di wan ne lii daganut lii da baaxut lii nangamut ca ñooñu gëm ko loolu lañ ci bañ kon tey moom candidat falaa yi li ñëpp xam nañ ko ñëpp xam nañ ci ay jàggat ci kanam bu terte bi jàllee tournée yi may def ci beneen kuréel bu bokkut en tant que responsable politique muy rassemblement famille religieuse du Sénégal da ma gis moo dem ci kër tarix yi yëpp dénoncé loolu